jox foofu itam kenn ku ne luy liggéeyam. te yàlla bi leen a jox bëgg a jox foofu itam kenn ku nekk luy liggéeyam. Jibril. Jibril. mooy jox yonent yi xam-xam. moo la jox yonent yi xam-xam. soo demee ba sa xaqulu bi. soo demee ba sa xaqulu bi. sa xel mi. sa xel mi. luy bakkan rëcc na ca bokkatul. luy bakkan rëcc na ca bokkatul ca. luy seytaane bokkatul. luy seytaane bokkatul. luy hadduna bokkatul. luy hadduna bokkatul. moomu xel jibril la. moom xel jibril la. mën nay jëlee ci péeb yàlla bi xam-xam da jox nit ñi. mën nay jëlee ci péeb yàlla bi xam-xam da ko jox nit ñi. xam-xam yoo xam ne yéen daan dégg mu dikk jagalaat ko yéen mostu dégg ñu dégg. xam-xam yoo xam ne daan dégg mu dikk jagalaat ko yéen mostu dégg mu dégg mu xamal ñu ko. kuñ ko def def Mikaayil kuñ ko def yaay doon nattukaayu sa jamono yaay doon nattukaayu sa jamono sa yar bi sa yar bi mooy yar ñëpp mooy yar ñëpp sa jëf ji sa jëf ji ci la ñëpp da roy ci la ñëpp da roy sa xam-xam sa xam-xam ci la ñëpp da dégg ci la ñëpp da dégg xasara in xasara jiituli yar la xasara jiituli yar la suñ la ko defee suñ la ko defee tuxkat yi dañ mujj ba tuxkat yi dañ mujj ba Cheikh Ibrahima nankati sangara yi ba nankati sangara yi bàyyi jëwkat yi ba jëwkat yi ba ñanoono woon àndoo ñanoono woon àndoo kooku mooy xasara yi kooku mooy xasara yi mooy teeyal bakkan yi mooy teeyal bakkan yi jërëjëf jërëjëf mooy kii yàqal bakkan ndax mooy kii wal buftu bi ndax mooy kii wal buftu nit ñëpp dee nit ñëpp dee kaddu waxtaan woo xam ne bu duggee ci yow kaddu waxtaan woo xam ne bu duggee ci yow rëy dee rëy dee xañaan dee xañaan dee yéen dee Ilaan Ibrahima Niass. tey am na Cheikh Ibrahima. macha allah jërëjëf Cheikh Abdoulaye Wilane. jërëjëf Cheikh Abdoulaye Wilane. loolu tax ñu tuddee ko Israfil. sarafa ji fi yàq. sarafa ji fi yàq la. li fi newoon ci xol bi yëpp yàq na. li fi nekkoon ci xol bi yëpp yàq na ko. xam nga balaa ngay àgg ci yàlla nga yàq adduna ak àllaaxira. waaw mais balaa ngay àgg ci yàlla nga yàq adduna yàq àllaaxira. yàq asamaan yi yàq suuf. yàq asamaan yi yàq suuf. yàq alquran. yàqu ni da nga ko rey mooy loolu mooy Israfil. Isa nufiqa fi suuri. wa Isa nufiqa fi suuri. ñu ne Israfil la nga nga buxtu ba. ñu ne Israfil la nga nga buxtu ba. bu la ëff rek ñëpp dee àndoor. bu la ëff rek ñëpp dee àndoor. buft bi suwat lañ ko ko tuddee. léegi sa xol bi. léegi sa xol bi. xaddu nanki. xaddu nanki. ak mboolem bujur bajari. ak mboolem bujur bajari. halaqira. mi ngi ci mi ngi ak mboolem bujur bajari yi nga gëm. moo ak mboolem bujur bajari yi nga gëm. loolu mooy photo yi. loolu mooy photo yi. photo yi nekk ci xol bi. bi. kaddu gis bi. kaddu gis bi bu dikkee. bu dikkee dëggu dëggu dugg dugg. yooyu yëpp tasaaroo. yooyu yëpp tasaaroo. jërëjëf gisee bàyyi naan bàyyi. bàyyi nag loolu la indi moom. mu ne bàyyi nag loolu la indi moom. bàyyi lim indi mbiram ruuxu. bàyyi lim indi mbiram ruuxu la. cër day yàqu. cër dafay yàqu. xol day yàqu. xol day yàqu. waaye ruuxu yàqu. waaye ruuxu du yàqu. loxo dana dagg. loxo dana dagg. tànk dana dagg. tànk dana dagg. du noonu. noonu la kay. bañ dana dagg. xol dañ ko dana yàqu. xol dana yàqu. ñu indi beneen xolob nit ku ku euh, wépp def ko ci. ñu indi beneen xolob nit bu wépp ñu yow def ko ci. bi newoon ci waa ji ñu sànni ko. bu nekkoon ci waa ji ñu sànni ko. kon xol day yàqu. kon xol day yàqu. waaye ruubu ndax dana yàqu. waaye ruubu ndax dana yàqu. bàyyi loolu la indi. bàyyi loolu la indi. xam-xam boobu la indi. xam-xam boobu la indi. moo tax. moo tax soo ko jëlee soo ko jëlee baaxeewu la ci xanaa bonee ca baaxeewu la ci xanaa bonee ca xas say dëkkandoor xas say dëkkandoor xas say jullit xas say jullit say say say mbokk jullit say mbokk jullit baaxal sa bopp baaxal sa bopp bonal keneen bonal keneen yow yàqu nga jëlee ci xam yàlla yow yàqu kooku yàqu la jëlee ci xam yàlla yàlla mu ne kon nag mu ne bàyyi na taalibe boo dëggu taalibe boo dëggu sëriñam dana ko jug sonn sëriñam dana ko jub sonn. fasut seen joxe xam-xam rek sonn. fasut seen joxe xam-xam rek sonn. waaye nag péeb yàlla bi bés ko mu joxe xam-xam. waaye péeb yàlla bi nag bés ko mu joxe xam-xam. taala bi dana dikk. taala bi dana ñëw. sëriñ bi ko daan laf. sëriñ bi ko laf. mu far continuer dërsuya mu far continuer dërsuya mu ne sitqiyatu gaa ko ko indi mu ne sitqiyatu gi moo ko ko indil mu ne taale buy dengi dengi mu ne taale buy dengi dengi rëngi rëngi rëngi rëngi dana jub sëriñ bi dana jub sëriñ bi mi ngi ci waxtaan wu neex mi ngi ci waxtaan wu neex buy yëg si buy yëg si rek yàlla soppi programme bi indi leneen yàlla soppi programme bi indi leneen bañ ba waxtaanoo bañ ba waxtaanoo yéen ñëpp ay sibir ki yàlla nañ ko gën a yàgg